société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen revue président Macky Sall kàddu Afrique réew mi quotidien nee na bii yoon mi ngi wax ci projet Afrique yeeg nanu koy financer taux d'intérêt yu cher ba yegg ci lool loola la doon ñaawlu ci kanam Union européenne booba jamono jur ak mbokki ñi ñu tëj ci kaso bi te wal politique dong waral ko ña ngay ñaawlu loola tey waajalu palang bu nu jàpp ne bu nu ko tëralee seen mbokk yooye daanu génn ci kaso bi réew mi quotidien nee na bokk na waajal àjjuma ëllëg ji ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru octobre waajuru ñooña ca kaso yëpp fas yéene wàcc ci mbedd mi ñaawlu seen doom seen soxna ak seeni borom kër yi nu ne ràpp te kenn ca ñooña faala fuleur réew mi nee na ay mbiram a ngi gën a mitti ndax gannaaw ba nu ko tëjee ci mbiram Ousmane Sonko kàddu yu mu yëkkati woon defati nañ ko ci mandat de gannaaw ba ko administration pénitentiaire tuumaalee ni da doon jéem a génne ngir jéebaane leen a bisub tey ji daanu ko jox atteem ñeel lañu ko doon toppee ci xeexum Ousmane Sonko gi mu sóobu moom Ousmane Sonko it ma ngay wéyal xeex ba ngir jot ci ay fiche de parrainage am source a nee na Sénat ga mu kalaame ji direction générale des élections amal nab ndaje démb waxtaanee ca ponk yu bari yéenekaay bi nee na kuréel googa di saytu élections yi du yàgg dara mu yónnee bataaxal awakaay Ousmane Sonko ak direction générale des élections xamal leen taxawaay wam nar a am ci kalaame ba ñu ko kalaamee société civile bi booba jamono ci bés bi la jour naan Sénat amul xalaat amul yox yoxi waxi assumel say responsabilité waxal fi dëgg féete le témoin itam yooyele kuréel société civile ña ngay wax ci processus électoral bi ñaawlu salfaañe gi ci ministère de l'intérieur def rawatinaak lànk gi mu lànk dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi gannaaw ba tribunal bu Sigicoor sàkkoo ñu delloowaat ko ci ni ñuy bundu xataale woy politique yi fare ci kujje gi itam société civile baa ngi koy ñaawlu ci biir le témoin les échos nañu ca woowale waxtu député yi Benno Bokk Yaakaar yi doon dajeek Amadou Ba ci Ndakaaru ñaawlu nañu ñàkk jumtukaay yi rawatina ak koppar ngir doxal parrainage bi ni mu waree ñaawlu nañu itam ñàkk yitte ak ñàkk wormal gi ministre yi nekkeek ñoom l'observateur dëggal ko ne lii lépp wax nañ ko ci kanamu Amadou Ba ñoom député Benno Bokk Yaakaar yi muy seen dëgg yu ñu yëkkati gannaaw dëgg yooye nag yëkkati nañu ay njàqare ci parenage bi ak ni yëf yi demee ñu nemmeeku lu bari lu ca soxe bokk na ci ñàkk am dayo gi mu waroon am waaye itam ñàkk koppar ak jumtukaay yenu yittewoo seenuk njàqare itam yéeni kaay bi nee na bokk na ci tournée ba Amadou Ba doon amal ca bët gànnaaru Karim moom daa mel ni day mujjee ñibbisi ndax enquête nee na waa PDS ña ngi koy xàllal yoon dowaaga mu ne nag moom Karim Wade ma ngay wéy di doxal opération ñibbisi gi ñi meroon ñëpp ma ngay jokkook ñoom ngir ñu dellusiwaat ci biir parti démocratique sénégalais enquête ne jot naa sax delloo si Sada Ndiaye ak Kalidou Diallo ndax démb yëgle nañu ne ñibbisiwaat nañu ci PDS laas dëggal ko ne Sada Ndiaye ak Kalidou jàllo fekk si nañu Karim Wade laasit dikk ci tukkiik Macky Sall ga ca Bruxelles ne ñu Union européenne ñoqil na Sénégal téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci milliards booba jamono ci yor yor bi Birahim Seck ak Forum Civil di sàkk ñu leeral téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn milliards yi FMI lebal Sénégal naka la ko ko lebalee fu ko teg luy charte yaak yu ca ajo ne ñu FMI kay fi ni moom la Forum Civil di càmbaree nu ne ndax njort ne am na lu leerut ca yëf ya l'observateur moom di indi ay leeral ci di waral Sénégal mel ni ku yàkkamtee lépp balay di jeex yéeni kaay bi na ci li ko waral bañ a fay googa itam yaakaar nañu ne borug sénégal dana wàññeeku bu baax a baax njiitu réewu senegal ga woon Léopold Sédar Senghor ak alalam ga ñu jënd ca bitim réew l'observateur it xëy na ci dellu si ci njënd ma njaay ma na mu doxee ak na sengoor dundee fukki at ak benn gannaaw ba mu jógee ci palep ndakaaru bi Touba booba jamono yéene kaay bi nee na gën na noo taral la nu fay aaye sëriñ Muntaxa Mbàkke yéene kaay bi ne jëlati na dogal yu bees bés bi ne maa leen koy leeralal dogal yooya mooy aaye politique ak football ca dëkk bu tedd ba gannaaw ba mu càmbaree nag la fa jëloon moom xalif général des mourides sàkku na ci takk der yi ñu jàppale Baay Faal yi ca liggéey ba mu leen sant ak ndigal ya mu joxe Walf mi xelam teey lool ci nin joxe aide à la presse yi Walf Quotidien nee na teggandee gum na ngànnaay ya mu jëloon bokkoon ca dajek taskatu xibaar yi amal toogaanub ñaxtu ak jaay yenn ci alalu Sidi Lamine Niass ab recours la teg ci taabalu ministre de la communication di xool ana fu wànnante bi mujjee ki gëtam waaye moom ministre bi di Moussa ci libération ñu des ci yéenekaay bi ñuy xamal ni itam CDP artu na SETER SETER mooma doon def libération nee na mooy di déglu ak lu ñu tu lépp luy waxtaan ci téléphone bu liggéey katam yi def ba ñu ko kalaamee ci commission de protection de données personnelles danoo sàkku ñu dakkal loola ñu jàpp ne teguwut ci yoon doomi Sénégal ya nekk ci Amérique teñ tuumaaloon leen yàqate consulat bu Sénégal ba léegi tey ñu dem ca kanam yoon les échos xëy di nu nettali naka la leen police bu New York la la leen wax wax business yéeni kaay bi ne département d'état américain ne ko nuut jàpp Serigne Touré moom la ko rey mooy déclaration de perte ba mu def benn ayubés gannaaw ban yàqee consulat ba Saliou Diop moom police bu New York ci reconnaissance faciale la jaare ba teg ko loxo 24 heures di nu yëgal ne Aliou Sané min teg loxo tax na ëllëg ñiy sàmm ak ak yelleefu doomu aadama ci réew mi fas yéene wàcc ci mbedd mi Sonko moom booba jamono avocat maître Ciré Clédor Ly ne mi ngi ci réanimation ba tey gannaaw ngelaw yu xóot moom candidat wu Sonko 2024 Walf Quotidien booba jamono ne yeneen candidat tàmbalee wut parrainage moom fi ne ku ne yaa ngay lal pexe ak di xool nooy tojee sa bopp jinax ñii dañuy làqatu ñee dugg ak di génn ak yeneen i pexe yu yéene kaay bi xëy di becci Sadio Mané moom ma ngay sàq yeneen pexe ngir waajal ëllëg bu bàyyee football stade ne bokk na ca yooyu pexe jënd gi mu jënd club bi di Bourges Foot 18 réew mi quotidien yeggee bëggoon boobale këlëb def ca lam ca war a def yépp nag ci diggante bi te yeyu ci yàbbi kenn xamalu ko ci woon lenn leneen lu ñu yéene kaay bi yeggee it mooy paluk Matar Ba mi ñu teg ci bopp conférence des parties à la convention internationale contre le dopage dans le sport di COP 9 ci stade moom Matar Ba mu xamle ne ci la muy njëkk a taxaw mooy fexe aar ndaw ñi ci dopage ak lépp lu leen di tere ñu jëfandikoo ko Ama Balde moom ndax dana tere Modou Lo mu daana ti doomu